avant 2006 gisoon nañ presse Sénégal fu mu tolloon le 11 novembre 1999 dafa am 11 novembre bu nekk fële Lyon dafa am benn cimetière ancien combattant sénégalais boobu rek moo fa am sunu maam yi demoon xeex fa lañ leen denc dañu Allemagne rey leen 11 euh, novembre 99 ma invité un certain maître Abdoulaye Wade il était à Versailles. Mm-hmm. ma dem këram ne ko. dañu am événement boo xam ne chaque année dañuy daje foofu ak sunu naataango tubaab yi. Mhm. mais mosuñu am homme politique bu ñuul. Mhm. donc à l'époque j'étais conseiller communication du maire de Lyon Gérard Collomb ki gaañu ki nekkoon ministre de la défense. maa nekkoon mhm. conseiller en communication. ma ne ko Gérard euh, damay invité benn leader politique sénégalais bu am bu am kii bu bokk si un des plus anciens. Euh, euh, ñeewantal naa ko yor sama oto parce que sama oto demeewul noonu abal ma sa oto. mu ne ma da nga ne c'est un grand homme politique non seulement dama lay abal sama oto mais suba comme que férié la pour ñun ñëpp boo bëggee ma nekk sa chauffeur il était maire d'une commune d'arrondissement mm-hmm. ñu ñëw jour boobu le Gérard Collomb ak euh, maître Ablaye Wade laa leen présenté ñu nekk xarit mais le fonds de solidarité numérique fa la juddoo mais Lyon. Mm-hmm. Mm-hmm. mais parce que en 1999 le 11 novembre 1999. Ah, maître Wade a été élu le 19 euh, mars 2000. li ma wax le 11 novembre 99 donc le le 27 février le 22 février 2001 Gérard Collomb a été élu maire de Lyon. Mhm. j'étais son conseiller. 2001. li ma la wax 99. maa ngi bon jour boobu ma ne ko président ma ne ko maître ma ne ma ma ne ko gis nga lii chaque année dañuy ñëw fii donc euh, euh, am na solo. suñu doom yi. ki mm-hmm. juddoo fii. Mm-hmm. xam ne ils sont pas si dëkk bi par hasard. Mm-hmm. dañ fi bokk. seen maam yi seen maamaati maam yi tëdd dañoo xeex pour dëkk bi am liberté mais il a pris l'engagement def na ko organiser la journée du tirailleur. def na ko. foofu la ko jëlee engagement bi. ñu kii ñu créer le club de solidarité numérique c'était à Lyon. avec Alain Madelin moo nekkoon président bi. donc on a mobilisé des fonds. le le le mois de juin deux mille vingt six. ñu ñëw fii. deux mille. deux mille vingt six. vingt six deux mille seize ñu ci deux mille vingt quatre. non man dama dama joxe chronologie. non 2024 lañ toll nii. mais dama joxe chronologie damay yaa ngi fii nga jëm. yaa ngi projeté juin de juin 2006. de juin 2006 bi ñu mobiliser fond de solidarité numérique bi président fekk nekk na président mu dellu si ñëw visite. mu mu recevoir ñu mun nañu léegi qu'est-ce qu'on fait on est on va moderniser la presse. Mmh. il y avait deux sites à l'époque Miti Sakana hmm, ak le soleil point sn Miti hmm. Sakana mooy site online fa la nekkoon. Hmm. mais on a organisé un séminaire fii à refi à fii euh, kii Cap de Biche. on a reçu ce jour la les confrères. on leur disait à l'époque ñu ñuy reetaan euh, on peut faire un journal avec un téléphone. jamono yooyu dañ ko doon wax. ñu ñëw dañuy ñëw indaale ay jeunes ingénieurs. ñu nekk foofu Lyon ñu indi leen fii. Mm-hmm. ñu defee ñu defee plénière bi hôtel de ville. Mm-hmm. defee travaux yi Cap des Biches. Mm-hmm. voilà comment la presse s'est numérisée au Sénégal. avec l'appui de la diaspora. avec l'appui de la diaspora. bu ñu ko jëlee comme partenaire. lu rafet la ñu